asalaamaaleykum mbokk info 7 TV l' officiel ñu ñëw yéen ci xibaar bi fële ca Maroc lu doy waar moo am benn sénégalaise maanaam ku jigéen nationalité sénégalaise moom dañ koo jàmpaaka ba doxe fa ñàkk bakkanam ki def la ni mar nag borom këram la nu nuñ ko defee nag jëf ju ñaaw yooyu ci kanam eh, ay doomam yu jigéen ci kanamu doomam bu jigéen waaw ba tax na nag communauté sénégalaise bi nekk foofu ca Maroc daal ñu ngi ci njàqare ak eh, xol yu jeex moom nag eh, li ko waral. mbir mu doy moom daal kii di Fatoumata Bal Bade Balde moom moo fa ñàkk ba bakkanam jëkkëram nag moo ko faat jam ko paaka ci kanamu euh, doomam bu jigéen jëkkër ji nag mu ngi tudd Ibrahima Diop moom nag daf ko jam lu mat euh, juróomi euh, paaka raconte le sur les sources anonymes nga xam ne ñi ko wax daal nanguwuñu siiwal ci source yi nga xam ne cité par le journal bi di Libération nga xam ne moo joxe xibaar bi dans son édition de ce samedi écho euh, yi nag ñi ngi renseigné que euh, drame boobu nag moom mi ngi xewe euh, ci seen kanamu doom bu jigéen boobu ak yi am ñaari at la de deux et demi du maanaam daal seen doom bu jigéen boobu mi ngi am ñaari at ak genn wàll xale bi nag journal Libération mooy wax ba tey moom denk nañ ko benn fondation bu nekk foofu ca Maroc fondation Lalla Salma <coughs> di jéglu di nom de l'épouse du roi du Maroc maanaam soxna su buurub Maroc Mohammed siis lañ dénk xale boobu mbir mi nag mi ngi am ci benn quartier bu naan Fara Salam ca nekk ca Casablanca nga xam ne couple bi foofu lañ doon dund fa lañ doon fa dëkkoon lépp nag euh, mi ngi jóge ci benn scène de jalousie maanaam affaire firange ak yooyu journal Libération mi ngi wax ne Ibrahima Diop moom placé nañ ko en garde à vue euh, tandis que nag autorité consulaire yu Sénégal nekk foofu ca Maroc actuellement ñi ngi jokkalante ak euh, njaboot gi euh, victime bi basé wu ca réewum Casamance fii ci Sénégal pour ñu xool nan la def daal ba rapatrier new bi fii ci Sénégal ñu ngi koy ñaanal rek suñu borom oyofal suuf si kawam te xare ko àjjana